Bonjour, euh, Momardien Diop. Bonjour. Voilà, Momardien Diop, euh, vous êtes le président de l'Association des émigrés sénégalais établis en Espagne. Vous avez des difficultés pour avoir des documents administratifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer amplement ce problème Avant tout, permettez-moi de rectifier. Je suis le président des Sénégalais de Forteventura, l'association de Forteventura. Oui. Pour ne pas faire euh, d'équivoque, raison pour laquelle il faut apporter cette précision. Comme vous le l'avez si bien dit, comme vous l'avez si bien dit, les Sénégalais qui vivent euh, à fois en Espagne on sont dans la tourmente pour la bonne et simple raison depuis quelque temps, ils sont confrontés à un problème de passeport. Euh, c'est une situation qui a également engendré pas mal de conséquences. Pourquoi, pour la, pourquoi Parce que beaucoup de nos compagnies également sont menacés de perdre leur carte de séjour ou bien de ne pas pouvoir avoir, de ne pas Euh, pouvoir euh, obtenir la carte de séjour faute de passeport en cours de validité. C'est une situation qui rend vraiment la communauté vraiment dans une précarité, précarité absolue. D'accord. quelle est l'explication euh, fournie par les, les autorités au, niveau d'Espagne Vous savez, il faut aussi reconnaître que la juridiction, le consulat général du Sénégal en Espagne, a toujours été une référence dans le traitement des dossiers de nos compatriotes Euh, mais depuis lors, euh, vraiment, la situation s'empire, la situation devient de plus en plus difficile, parce qu'il faut tenir la population a plus que triplé. Officiellement, on parle de 70 000 Sénégalais, mais nous faisons plus de 200 000 Sénégalais au niveau de toute l'Espagne. Et il faut également euh, retenir un aspect très Euh, après avoir fait des investigations là-dessus, ils m'ont fait a une pénurie de talents. Nous, pensons également gouverner, gouverner c'est Je crois que l'État du Sénégal devrait prendre les mesures adéquates et opportunes pour permettre vraiment aux Sénégalais de la diaspora de pouvoir renouveler ou bien d'avoir un passeport dans les conditions les plus optimales et dans les délais, records. Est-ce que vous avez saisi les, autorités compétentes en fait, euh, Tout à fait, tout à fait. J'ai eu, euh, j'ai joué le, le, le consulat à son excellence euh, Mamadou Moustapha Loum, qui aussi, il faut le reconnaître, a, a, a, dans sa politique de trouver une solution alternative, a tenté vraiment de demander au niveau des, différentes, des différents commissaires de police de, de simplifier vraiment les formalités de nos compatriotes. Mais vous savez, la carte de séjour est un élément indispensable pour toute formalité administrative ici en Espagne. Euh, d'accord. Et euh, quel appel lancez-vous au président Sall par rapport à votre situation actuelle Vous savez, je l'ai toujours dit, le président Macky je considère qu'il avait vraiment... Mais depuis qu'il est devenu président de la République, il a tout complètement le diaspora. Oui. Et cette même diaspora a participé de Fort Belmanière à trois faut aussi mettre en exergue le président Macky Sall. sa euh, dernière visite ici en Espagne date de 2015. Et moi, je crois que depuis, on, on fait les retours en Italie, en peu partout dans le monde. Cela prouve le port de considération que porte à l'égard de cette communauté qui vit emploie ici en Espagne. Nous lançons un appel parce que nous, sommes là pour et par Sénégalais. Et je crois que également ce sésame, qui constitue un élément indispensable, comme devrait être un vieux souvenir en vraiment le bureau des passeports, euh, des talons pour lui permettre d'accomplir sa mission de tant que Sénégalais établi pensez-vous euh, euh, du phénomène de, de l'émigration irrégulière qui est actuellement au cœur de l'actualité euh, des jeunes Sénégalais qui bravent la mer pour arriver en, Espagne? Que pensez-vous de ce phénomène? Vous savez, comme euh, euh les îles Canaries, c'est le lieu de prédilection des, des, des embarcations de fortune. Ils arrivent le plus souvent ici aux Canaries. Aujourd'hui, je peux dire sans risquer de me tromper que vraiment, la crise a dépassé politique. Parce que les nouveaux arrivants vraiment s'amplifient de jour en jour. Et c'est une situation qui est très préoccupante. Mais cela trouve une explication, rien d'étonnant à cela, parce qu'en tant que le Sénégal aujourd'hui est dans une situation politique, économique, sociale difficile, les Sénégalais qui n'ont pas d'avenir, qui ne savent plus à quel service sont tentés par l'immigration irrégulière. Nous ne sommes pas là pour encourager cette immigration irrégulière à, travers des, à de fortune, parce que nous considérons également c'est risquer sa vie et Mais, euh, mais notre gouvernement également devrait vraiment trouver les moyens concomitants dans le cadre de la coopération avec les pays avec lesquels ils sont en, en, en, en euh, de faciliter également euh, l'obtention des visas. Si, par exemple, le Sénégalais peine à trouver les visas, il n'a pas de travail, il n'a qu'une autre option que de braver la mer. Et ça, c'est vraiment regrettable. Aujourd'hui, nous pensons que nous devons également réfléchir sur un aspect très important. Nous, nous, nous, parlons seulement de ceux qui arrivent. Mais combien de Sénégalais périssent dans la mer C'est quelque chose que, nous devons mettre en exergue. Aujourd'hui, je crois que l'État du Sénégal, à travers le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de la Jeunesse, devrait vraiment asseoir une politique agricole de jeunesse pour que les jeunes puissent avoir du travail et de la D'accord. Euh, ces candidats à l'immigration irrégulière, une fois en Espagne, euh, quel est leur sort Est-ce qu'ils euh, arrivent à réaliser euh, rêve comme ils pensent que l'Europe, c'est l'Eldorado Vous savez que le président Ablaïwad, en son temps, avait signé euh, une convention avec le gouvernement espagnol à travers la Commission et l'Union Michel, qui dirigeait cette commission pour que tout Sénégalais en terre espagnols puissent être répatriés moyennant 20 millions de dollars, 20 millions d'euros en son temps. Cet argent, comme le disait le président Ablaï, c'était pour encourager vraiment les jeunes à, à, à se tourner vers l'agriculture. Mais je crois, je crois que ça également, c'est un projet morne. Aujourd'hui, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de, de trouver les voies et moyens pour que les jeunes puissent trouver du travail. Les, les, les, Sénégalais, une fois arrivés ici, vous savez, la communauté sénégalaise également oui. est constituée d'associations de Daïre et également il y a les ONG, les associations, la Croix-Rouge, qui essaient de les aider autant que faire se peut pour que vraiment cette précarité d'un soit vraiment le plus, le plus bref possible. Raison pour laquelle, une fois arrivés ici, nous nous constituons pour voir les, les, moyens pour pouvoir les aider à travers les associations, à travers la fondation CPIM, à travers la Croix-Rouge. Mm-hmm. Mais ce n'est pas toujours facile. Actuellement, comme il y a également le phénomène, euh, comment, nous nous, nous, nous nous, projetons vers les élections. Il est certes vrai que depuis quelque temps, on a commencé les rapatriements, mais je crois que ces temps-ci, ces, rapatriements ont été ont largement diminués. D'accord. Et avez-vous des, des, des, des, des solutions, des suggestions à faire à l'État du Sénégal pour euh, freiner ce phénomène, pour lutter contre l'immigration irrégulière La seule et une solution qui vaille, c'est d'amorcer de jeunesse en trouvant à la jeunesse du travail, créant des structures de formation pour que les jeunes puissent se former et également puissent trouver du travail dans l'avenir. C'est la seule alternative possible à mon avis. D'accord. Nous sommes presque à, deux mois de l'élection présidentielle. En tant qu'émigré euh, sénégalais de la diaspora, qu'attendez-vous du président de la République? Qu'il y comme je l'ai dit tantôt, à, à, à l'effort de développement. Parce que, comme je l'ai dit, Nous n'avons pas de politique migratoire. Sans politique migratoire, on fait du pilotage à vue. Et pourtant, nous avons des projets, nous avons des investisseurs qui veulent investir au Sénégal, nous avons des partenaires qui veulent venir au Sénégal, mais souvent nous sommes confrontés à des difficultés. Moi, je considère qu'aujourd'hui, l'heure est venue que la diaspora puisse vraiment mériter, puisse avoir vraiment le respect et la considération Parce que sans cela, vraiment, nous, sommes, nous, avons toujours des difficultés. Merci beaucoup, euh, euh, Momar euh, d'avoir répondu à nos questions. Merci.